Macky Sall Macky Sall mënuñu ko bàyyi mu def lu ko neex ci réew mi organiser élection ni mu ko bëggee déclarer résultat bi mu bëgg a toogaat ci réew mi génne armée loolu war ñu ko nangul pour loolu nag yi may wax nii déglu leen ma bu baax déglu leen ma bu baax dama bëgg fii lay daanelee te lii lu am solo la ci meeting bi. Macky Sall lan moy ndeyu Macky Sall mom moy tok décider ban sénégalais mo wara voter ak ban sénégalais mo warul voter lan motax Macky Sall wara a mën lu mat un million et quelques de cartes d'identité du ko joxe ñun ñu tok diko sétane. Mom ni mu jotee carte d'identité soxnaam jot carte d'identité ay ministre am jot seen carte d'identité ay doomam jot non la chaque sénégalais amé droit jot carte d'identité donc premier xeex baa ngi noonu bi joxe nay ay carte d'identité ba paré ñu bind ci gannaaw de ñooñu jot nañu carte d'identité waye amuñu droit voter loolu waruñu ko nangu té dafa wara jaral sénégalais bu nek suñu woté né 1 million de personnes nañu génn dégg ngeen ñu wax one million mars gis ngeen demb initiative Maître Adama Gueye lancé dégg ngeen front bi li def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 lepp mi ngi dess ci askan parce que man gëm ne ni bis bu askan mobilisé lu raw li ñu 23 juin Macky Sall xam ni mi ndax minorité sociologique la Macky Sall statistique yi mu def sondage yi mu def nañ ko ni 34 pour deuxième tour am te ñëpp xam nañu bu deuxième tour dugg euh, dem dem dem suuf bi bi carte électorale carte électorale mooy dafa war a joxe teel koo joxe ñu xam fan la bureau de vote yi nekk gis ngeen li xewoon Touba ci élection bi passé suñu sàgganee lu ko raw mooy xewaat nag ndax moo tee carte électorale bi moom ak Aly Ngouille nga xam ne moom xam na li tax Macky Sall faluwaat jaral ko bakkanam moom Aly Ngouille ndax xam na li mu def kon suñu sàgganee nee nañu